te li tax ñu ñëw fii du hasard yéen a tabax yéen a ji yéen a saxal loo xam ne ñu ñëw fii et pas ailleurs ndaxte nag Sénégal yaatu na il y a 16 millions de citoyens sénégalais bu ñu rombee kër yu bari ñëw fii ci Jamra c'est parce que Jamra moo fi ji moo fi liggéey loo xam ne am nañ yaakaar ne bu ñu àndee dinañ gaaw a saafa saafara jafe-jafe yii te répartition des rôles bi nga xam ne moom moo dox suñu diggante ñun ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax yaa ngi doon wax sànq ne RDS mooy branche politique bi Jamra di beneen branche bi ah jàppal na xëy na ñun ñooy branche bi nga xam ne ñooy nekk ci terrain bi ngir yombal négociation yi ngir accélérer négociation yi ndaxte soxlawuñu forcément toog ak monsieur le DG de la Sénélec boo ñu fu toogalee suñu xel dal na soxlawuñu forcément toog ak président de la république ñun suñu rôle mooy naka la ñuy édifier un rapport de force sur le terrain ngir président recevoir yu mel li yéen ngir saafara jafe-jafe waa ABS jafe-jafe waa Sénélec jafe-jafe animateur culturel jafe-jafe waa Médina Wandifa waa Kahone extension ak ñoom seen euh, Imam Makhtar suñu mbokk kaw yi suñu mbokk kaw ga sonn nañu ndaxte état du Sénégal moo def benn réforme boo xam ne forage yi nekkoon ci loxo asufoor yi maanaam loxo askan wi mu def réforme boo xam ne dafa jël asufoor yi jox ko ay privé ay privé étranger moo tax ay weer a ngi ay at a ngi ngay dégg Flexo dégage Aquatec dégage looy jëlee lu mel ni ndox nga xam ne booy jàpp da nga soxla ndox bu xale juddoo da nga soxla ndox néew pour ñu rab ko dafa danga soxla ndox lu amee solo ni ndox population yi di ko yore nu mu waree nga jël ko privatiser ko te ci ndox boobu ak bénéfice yi la askan wi doon tabaxee ay juma ak ay jàkk ay case de santé ak ay poste de santé di yorewee seen étudiant yi nekk d'accord ci université yi ndekete ñoom ñu ngi teg bët ci bénéfice yi ñu privatiser forage ndox bi gënul neex gënul baax ñu yokk prix ndox bi accaparement de forage yooyu spoliation de forage yooyu ñun itam loolu moo ñu tax a jóg ba waa Touba Toul waa Mérina Dakhar waa feneen ak feneen di jóg naan Aquatech dégage naan Flexo dégage loolu itam bëgg nañ président de la république dellu si ginnaaw te dinañ continuer mobiliser wu ngir forage yi ñu delloo ko ci loxo askan wi dañoo toll jamono joo xam ne ci àddina bi on parle de municipalisation de l'eau ngay jël suñu ndox jox ko ay dem Suez nga xam ne foo dem ci àddina bi ils ont une très mauvaise réputation ñu naan déet nga privatiser l'hydraulique rurale donc Imam Mactar loolu itam bokk na ci lu ñuy xeex fi may daanelee mooy am na ay dëkk yoo xam ne dañoo former ay collectif bokk nañ itam ci front multilutte doy na te ñoom yaa ngi nettali 1940 1950 ba tey dëkk yooyu dañoo gis ne avant indépendance ak après indépendance benn la ci ñoom boo demee ci dëkk yi wër Baba Garage benn rang-rang boo xam ne depuis 1939 moo fa nekk ba tey jii nii dara changé wu kon avant indépendance ak après indépendance benn la fan la xaalis bi di dugg moo tax ñu bokk aar li ñu bokk ndaxte. li ñu bokk suñu zircon suñu phosphate suñu or suñu wurus suñu pétrole suñu gaz suñu jën suñu budget buñ ko yore woon ci beneen anam kon Baba garage am na goudron kon les six communes di pakaaw ba tey jii ni amuñu courant am nañ courant amuñu courant avant indépendance amuñu courant après indépendance donc Imam Mactar dama bëgg a gàttal wax ci dama dama ko bëgg a tënk jéem naa ko tënk nii tomb bu mujj bi mooy les violations des droits des travailleurs boobu mooy bi ci mujj bëri na ay collectif yoo xam ne ñu ngi ci biir front multilutte doy na li leen fi indi mooy violation des droits des travailleurs ABS déggoon nga ko aéroport bus service ñeenti at sans salaire mhm. waa Sigelec waa Excelec waa Grande Côte opération Eramet ñoom ñoo nekk ci jogo ci zircon bi 55 travailleurs ñu licencié leen jamono ji nga xam ne état du Sénégal nee na kenn mënatul licencier un travailleur ndax mbas mi français yooyu ison ont licencié en plein mbas 55 travailleurs comme ça. Werbe Brioche Dorée AFCO Astaldi ay italien Top Inter biir AIBD 6 mois sans salaire yu teglantoo. lii mooy li nga xam ne moom la ñu ñëw bokk ak yéen moom la ñu ñëw waxtaan si ak yéen moom la ñu ñëw bëgg ah bokk plateforme bi bokk ànd bi au service du peuple sénégalais.